amiin alaaji bi waaw. Eh, daam suuf yow maa ngi lay fay. sama jarbaar suma xarit. ndeysaan mais Lion. tey ngeen indi ki nga xam ne mooy Bébé Diène digganteem ak ki nga xam ne mooy mooy Baye Mandione tey nan ngeen ko waajee. waaw daam nuñ ko waaje mooy que combat capital la ñu am tey te li ma ci gën a yéem gën maa jaaxal mooy xale yi léegi bu ñu bëree li ma di naata jógee. ndeysaan lii dañ ko bëggoon yàgg na mais nag def ko. te yàlla def na 1000 pour cent bi macha allah ñu ngi félicité ñëpp loolu moo tax tey Médina foo sànni matt mu teg te loolu dafa am solo ci làmb léegi promoteurs yi léegi soxlaatuñu mën mën a de soxlaatuñu daxal ba a jëlee ci waaye boo jógee mbooloo jóg non léegi ko bëri si cent millions yi gëm ñëpp xaalis bi kenn moomu ko loolu lay comprendre nañu booleeg nag man ñëpp xam nañ sama diggante ñoom bàyyeeg doom boo leen naxante da leen wax dëgg da leen wax dëgg hmm. ñu comprendre xam ne làmb du ay caaxaan làmb sport la récupération gëm sa bopp liggéey lu metti am résultat lu baax. tey tey Bébé Diène tey nan la war a li nga xam ne mooy combat bi. waaw ni mu ko war a aborder mbër mu mag la ak mu ndaw eh, tey mu jox ko cër daf koy jox cër parce que Baye Mandione am na lu mu fi def waaye bu jox cër bi yëpp dafay da koy xool rek maanaam li ñu travail daal eh, daam boo bëggee dëgg bëgg ma ko wax mais am na stratégie bu grave boo xam ne dañ ko teg. te bu réussir nga gis làmb ji mën naa bañ a eh, mën naa bañ a yàgg si kàttanul yàlla waaw. ndax mën nañ ci xaar làmb ji yàgg wala làmb yu gaaw. waaw làmb nag xam nga des fois même ñëw téye boppam te su ma jum gars dañuy bàyyi xel léegi. waaw beneen su combat yu bëri gars yi ñëw taxaw. parce que dañ naan am na lu la ci ginnaaw. mais ñun changé nañu stratégie. il faut être il faut être stratège. gis nañu suñu suñu combat yu bëri gars dañuy taxaw. léegi ñun changé nañu. ba ma combat maññeeg bu mujj bi. waaye déggoo li ma la ak bu bébé jéem a waaye dafa taxaw beneen si léegi nag ñun xam nañ li ñu def travail nañu xool nañu gis nañu lamb jaa ngi noonu nag tey di ñaan yàlla daal borom ndam yàlla ñu yàlla may ndam mais lu li ñu topp tey loolu gën a daw sama yaram tey. daam tey ndam rek. incha allah rek loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ndam liggéey nañ ko sonn nañ ci xale bi gëm na boppam am na fit mën naa bëre li ñu li ñu wër si mbëri ba moom bu ci njëkk mooy macha allah mën a bëri bële bu ci topp fit bi dëgër na ñeme nekk yow kon fi mu nekk ay quelques réglages des rek yàlla ànd ak ñu ñu jàng bi dinaa yëngu loolu de loolu lañ bëgg incha allah.